ñi ngi nuyoo ñi fi teew ñëpp ci suñu mbokk journaliste yi leen ma saw ci coono bi ndax fa ngeen jóge te mu sori lool ak embouteillage yi xam ngeen ñu caaxaan lañ leen fa wooyoon mooy ndajeem procureur waaye nañ ci dellusi si di mbooleem ñi ñuy seetaan ci euh,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 fonctionnaire sa grade nu mu kawe kawe kawe ab nit dong nga di ab citoyen magistrat sa grade nu mu kawe kawe kawe ab nit dong nga di citoyen te fañ la teg askan wi di la fay pour nga def ab liggéey dafa am charte ñu tëral nit nii nga war a doxale saa soo ko wàccee rek mérite ñuy masaxa ak yow wala ñu naan dañ lay respecté parce que yaa njëkk a xotti worma réew mi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 gëw ma ni mun nañu atteindre ci loolu fi mu wàccee fonction euh, présidentielle di woo nit ñi palais parce que mën ngaa saaga ñaata nit la recevoir palais lan mooy seen mérite saaga li waa ji ne en fait li expliqué wee Macky Sall a un problème avec son passé je crois un problème lui avec son passé et essaie de prendre une revanche sur la société moo tax respecté wul kenn ku dul Macky ci boppam keneen ku dul Macky Sall jàpp na ni doo nit soit nga ànd ak moom da nga koy ndunguru wala mu jaar ak yow fu ñëpp xam wala nga ne yow d'accordu ma ak moom ci ni mu yoree réew mi mu ne faw ma tëj ko kaso loolu mooy Macky Sall kon fi mu wàcce institution fii institution présidentielle au Sénégal kenn mësul egg foofu léegi nag li may wax sénégalais yi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 liste titulaire u Yewwi Askan Wi warul dem waaye la fekk ñu fexe ba dugalaat Benno Bokk Yaakaar te boobu jamono Benno Bokk Yaakaar ay parrainage am ëpp na muy benn parité am wu ko looloo gën a garaaw ci li conseil constitutionnel def ces sept charges là c' est des criminels li ñu def c' est un crime loolu moo gën a garaaw que sax la fait ñu ne ñun suñu list titulaire national du dem kon dama bëgg ñu delloo ci xel yi ci loolu balaa ñu naan suñu list national dafa war a bokk coow li yëpp mooy Benno Bokk Yaakaar waruloon bokk ci élection bi parce que keneen ku mu doon listam doo bokk ci élection bi ñaata nit la ñu téye parce que nee nañu seen parrainage matul yoon dafa ne parrainage bi bu manqué benn munoo dem bu ëppee benn munoo dem Benno Bokk Yaakaar ëppale benn depuis quand conseil constitutionnel nga xam ne c'est le juge de la conformité à la Constitution naan la l'arrêté d'un ministre depuis quand le conseil constitutionnel est le juge de la conformité à un arrêté ministériel c'est une honte c'est une honte ce que les, les, les, les la, la magistrature est en train de faire dans ce pays et j'interpelle l'union des magistrats bu dee dese na lenn su dee dese na lenn ci dignité ak ci probité nañu jóg wax ci ñoom li ñuy def ñoom magistrat yi ci réew mi bu dee nag dañ ñoo bëgg a gëmloo ni justice amatul desetul dara lépp a ngi ci loxo Macky Sall ñu xam ni on a un pouvoir amuñu judiciaire amuñu législatif pouvoir exécutif la ñu am boo xam ne ay juges yu koy jaamu la ay fonctionnaires yu koy jaamu la looloo fi des ci réew mi et donc ñetteel bi ma bëgg a wax mooy arrêté préfet bi li préfet def dafa symboliser li ñu li ñu def suñu administration léegi li des ci administration le gouverneur laa bëgg a wax sax gouverneur d'abord parce que le gouverneur de Dakar ku ma xam bu baax la maag moom ñoo bokk promotion ENAM chaque cinq heures ñoo doon footballeroo terrain ENAM xam naa ni ku baax la waaye alxasan gis nga àdduna yenn saa yi nga jël sa responsabilité ñu affecté la feneen sax moo gën nga nangu ñu associer sa tur ci njombe yu mel nii moom gouverneur Alassane Sall sama frère la je ko ne xam naa nit ku baax la l'esprit noonu lañ ko doon wooye bi ñuy football l'esprit l'esprit waruñu laa wàccee ba ci lii rafetul carrière jarul yenn yi nit sa dignité ak sa diggante ak sa borom amul lu ko war a jar lu dul ay carrière Macky Sall wax na Antoine Diome wax na et cetera parce que moom ci boppam ñu signé la loolu xam na ni euh, article bi ñu wax yéen journalistes yi la jublu te pourtant yéen journalistes yéen a ngi ni di couvrir suñu conférence de presse bu meeting amee di ngeen ñëw article bi amul benn rapport avec la liberté de manifester ou de se regrouper amul dafa ne période préélectorale bi yéen waru leen couvrir propagande électorale ñoom suñu cohérent cohérent ak ñoom te yéen ñëpp dañ leen war a ñëw roñ kon moom alxasan xam na ni liñ ko signéloo te wóor na ma sax dañoo bind rek ne ko signél mu signé xam na ni lii dëppoowul ak yoon waaye c'est à ça que notre administration est réduite et c'est triste réew mi bu ñu koy defaraat justice ak administration la ñuy njëkk jublu ay réformes parce que justice bu nërmeloo ci réew rek dara desu ko lépp mun na nërmelu ci réew ba mu des justice te soo waxee rek ñu làqatu waaye l' institution judiciaire nangam les les plus grands ennemis de l' institution judiciaire sont dans la magistrature loolu mooy dëgg kon arrêté gouverneur bi c' est un arrêté illégal mënul servir de base à une interdiction préfet bi li mu def tey mënul légal parce que préfet bi ñaar la wax bu njëkk mooy menace de trouble à l'ordre public te saa waxuñu nag menace de trouble à l'ordre public bi lan la de xam naa MFDC mooy ñëw ak toutes ses bases a la place de l'obélisque peut-être que sax Macky moo leen di jox kaat ñu ñëw lan mooy menace à l'ordre public ñun di semaine ba la def nañ ci manifestation dara yënguwul manifestation bu mucc ay ñu pare ramasse euh, mbuus yeeg yëpp defaraat place ba mu rafet nit ñi ñibbi moo tax d'ailleurs li ma wax léegi gis ngeen procureur il faut euh, il faut Yewwi Askan Wi déposer une plainte contre le procureur parce que ñu def manifestation ay une semaine coow amul dara amul nga toog ba tey nañu suñu manifestation boobu insurrection la woon est-ce que procureur bopp bi yur bi normal la ñu def seen manifestation une semaine plus tard dara yëngatuwul pétard sax dégguñu ko nga jékki-jékki inventé say ay histoire ne manifestation bi insurrection la woon ana les les les les les les signes de l'insurrection kan la ñu xeexal fan la ñu dem est-ce que dañoo déloger pale est-ce que est-ce que ana ana signe insurrection loolu mu ñu jiiñ nag on va déposer on va demander à nos avocats de préparer on va déposer une plainte contre parce que toog yor fonction rek foog ni lu ne mun nga ko teg ci ci deru nit ñi dafa yomb procureur waxul dëgg waxul dëgg xam na ni insurrection amul te nous l'interpellons personnellement parce que dafa am loo xam ne nit su koy def mun nañ la c'est des actes et des propos détachables de sa fonction fonction procureur du lii li mu wax tey politique la bu ñu waxee loolu ba pare nag dañuy wax sénégalais yépp que suñu manifestation gannaaw ëllëg maintenir nañ ko duñ ci changer lu toll ni tarfata ay manifestation bi maintenir nañ ko duñ ci changer tarfata ay man dama ne sax est waruñu koo dem defi place de l'indépendance waaw est-ce que waruñu koo defi place de l'indépendance duñ ci changer dara dinañ def suñu manifestation parce que nag li ma bëgg incha allah boobu li ma bëgg sénégalais xam gis nga li ñuy xeex nii. du ay poste yu ñu bëgg fii amul kenn ku fi ku fi poste député ñi fi musa ñi fi toog ñëpp daanaka presque mus nañ nekk député ministre ak yeneen ak yeneen man mii di wax ak yéen bëgguma nekk député bi ñu waxee dama leen ne woon am naa mandat bu may gérer à Ziguinchor dama bëgg a wu ci loolu ñu xool nag nu ñuy préparer élection présidentielle waxtaan moo andi ba ñu convaincre ma ne dinaa dugg su ma su ma nekkoon député it damay choisir diggante la ma war a def Ziguinchor ak député parce que man gëmuma cumul de fonction kon ñun député feesul suñu bët nekk nañu député ba tey ji cinq ans nekk naa ko député ñeneen ñëpp fii Déthié nekk na ko ay Aïda Mbodj nekk na ko Habib Sy euh, Khalifa Sall et cetera kon lan mooy poste député ñun xeexuñu pour poste mais principe la ñuy xeexal mooy lii suñ ko nangulee Macky nañu xam ni c'est fini ci Sénégal nit ñu bëri dañuy woo naan ñu waay euh, moom bu leen ko topp ci loolu xam ngeen décaler leen mbir mi et cetera looloo tax dix ans yi passé Macky Sall di def lu ko neex est-ce que mun nañu continuer accepter que Macky mooy tànn kan mooy dem élection élection législative bi ñuy dem benn ténor opposition du ci bokk est-ce que loolu xel mun na kon yéen ay gis France élection législative Jean-Luc Mélenchon ma nga fa Marine Le Pen ma nga xalaatuñu élection législative France ñu ne éliminer ñu diw parce que nee nañu listam xaw ma xalaatuñu ko noo mu nee ne damay dem élection législative nga ne Ousmane Sonko du bokk xalifa Sall du bokk Karim du bokk Déthié Fall du bokk Aïda Mbodj du bokk Habib Sy du bokk et cetera et cetera loolu ban façon élection législative la est-ce que loolu sénégalais yi war nañ ko mën a nangu kenn ku nekk fi nga toog sa biir salon nañu posé wu question yooyu principe yooyu la ñuy xeexe muy ñaar mooy li mu def pour annuler suñu candidature te tegu ko ci yoon ñaareel bi mooy mu tegaat ci nag ne les libertés dama koy confisquer ma fàttali ni Macky 2011 dafa ne l'affrontement est inévitable ça va se jouer dans la rue j'invite le peuple sénégalais à sortir il n'y avait pas d'autorisation chaque jour ñu ngi woon place Obélisque il n'y pas d'autorisation li may wax Macky mooy ça se jouera dans la rue et moi j'appelle tous les Sénégalais à sortir dans la rue c'est tout kon mu des nag buñ ko bàyyee ba mu tere ñu ñun manifester te nu mu demee nu mu munti demee dina am manifestation manifestation lay bañ dina am manifestation manifestation nag bëri na forme dëkk bi yëpp dina am manifestation bu soobee yàlla li ca des nag mooy complot yi nga xam ne Macky mi ngeeg moom complot yi mu nekkee xam nga li mu defee woon France ñun xam nañ ko ku mu dajeel France ci ñu ci lu ñu fësal ak lu ñu fësalul xam nañ ko ci ñu bokk ci réew mi ak ñi ko ngemb ci France lépp xam nañ ko lam fa uti woon xam nañ ko ay pexeem lu mu def su bëggoon jot du ma ne lépp xam nañ ko de waaye lu ci bëri xam nañ ko parce que ni mu yóbbee ses services de renseignement général yooyu noonu la ñu amee ñu nit suñuy nit fu mu toog ba foog ni wéet na fa sax ndax xam ni li muy def ñu ngi koy xam kon gënuñ ñoo muus ma bëgg wax sénégalais yi ni procureur li mu def sànq commande politique la ça n'a rien à avec la justice procureur ci boppam xam na ne li muy wax du dëgg xam na ko kon li mu def léegi politique la du justice tey it leader yi fi nekk yépp ay cible Macky Sall lañu waaye xam nañ ni tey leen tax a jóg mooy jëmm Ousmane Sonko moo tax dem nañu fabriquer seen rebelle fex nañ ba mu tudd Ousmane su tuddoon usmaan it Sonko lay sant waaw su tuddoon Ousmane su tuddoon yi Sonko lay sant dem nañu fabriquer seen i rebelle nee nañu waa ji moom xamu fu mu jógee moom dong nag moo waroon ñëw taal Sénégal moom dong xamu fu ñu ko jëlee ak ay xam naa ni war naa yàlla war na koo may ay don yu extraordinaire moom dong moo waroon ñëw taal ci Sénégal ma wax leen ni procureur waxul dëgg day politique ci politique la nekk waaye procureur dafa waroon am fitu ne Macky Sall daf maa yebal pour ma jiiñ Ousmane Sonko rebelle dem jàppi ko wax ji yëpp loolu la ay personne n'est intouchable dans ce pays li mu ci jublu xam nañ ko waaye ñoo ngi leen di xaar jóge nañ ci complot siif jóge nañ ci complot salafiste jóge nañ ci complot tuloy oil léegi bii moo leen dese waaye fii lañ leen di xaar fii lañ ñuy fekk seen complot bi mu voté loi am gannaaw duma yi ñu ko duma mars daaw la voté loi ci terrorisme yéen a ngi koy fàttaliku rébellion la ñu bëgg a wax appel à insurrection ñaar yooyu la ñu bëgg a wax appeler à manifester qui est un droit constitutionnel et désormais un appel à insurrection dans le jargon de lexique juridique de Macky Sall de son procureur et de ses juges foofu lañ toll ci Sénégal seen mbébét yëpp nag mooy lu ñuy def ba teg loxo ci leader yi seeni complot dem na ba ne soyez pas étonnés ñu fomante fi ay attentat Macky Sall sañ na ko di ngeen jékki ñu dégg attentat parce que soo wax ñu ne la contexte sécuritaire le Sénégal n'est pas en danger sécuritaire daaw bi ñu ko waxee 4 avril police ak gen kii militaire yi ak gendarme yi 4 avril ñoo def seen émission ne li ñuy wax amul y a pas de jihadisme ni de terrorisme au Sénégal démenti boobu mi ngi fi dugg leen ci internet bi parce que nag nous avons une armée très républicaine boo xam ne kenn mënu koo dugal ci caaxaan pexeem yi muy def ni yëpp ci police la ak ci ñi jiite ñenn ñi jiite gendarmerie waaye police bi du leen topp de la ci ëpp ci agent yi duñu leen topp te chaque fois ma wax leen ko nag Macky Sall bu mu leen tayle saa yu defee li muy def ba pare day jël avion dem bu mu leen tayle mais seen complot yooyu yëpp daaw bi ñu ko waxee dajale dajale euh, force occulte qu'on a vu jusqu'à présent euh, xawma la lan daan lan terrorisme gendarmerie ak police ñoo ñëw plateau 4 avril ne loolu amul kan moo ëpp information gendarmerie ak armée ci lu jëm ci sécurité amul ci Sénégal Macky ci boppam ñooñ ñoo koy informé Sénégal nag ñoo war a bañ Macky Sall sa stratégie waxoon naa ko fi c'est la stratégie du kaw xam na ni mënul am troisième mandat nu muy def ba créer un chaos fexe ba jàppale leader daal di décra décréter l'état d'urgence et et et le comment on appelle ça le couvre-feu général pour mun a justifier nag li muy def régime militaire la fi bëgg a andi bu dee nag dañ ko topp ci loolu te mi ngi koy def ak des complicités étrangères et à l'interne ay ay milices yu muy monter moom Macky sal ay milices yu muy monté pour ñu mën a def ay njombe ci réew mi ñu ne voilà opposition bi ñoo woote woon loolu lay waajal ñun xam nañ ko ndax am nañu information yi ma wax nag ni ñu bëri ñu ngi woo nee ñu bu leen dem ci affrontement ñun suñu option première du affrontement suñuy droit constitutionnel la ñu bëgg a un point un ak refuser une mascarade par rapport à nos amul leneen ñu bëri dañ lay wax ni Macky Sall sait que l'affrontement est inéluctable mais repousser leen ko ba coowal troisième mandat commencé mais li ma bëgg a wax mooy li mu bëgg a def nii suñ ko ko bàyyilee mu yombee noonu ci moom dara dootu ko jomb ci li ci des parce que du koo xam ne xa mun na dégg wala mun na raisonné wu moom xamul loolu su lambee mu nooy rek day dem looloo tax ma ne ñun combat de principe moo tax ñuy xeex manifestation ëllëg bi gannaaw ëllëg bi leaders yi ñooy xool ndax suba dañuy introduire référé directement euh, au niveau de la cour suprême man dama koy wax gëwma cour suprême gëwma conseil constitutionnel jusqu'à ce que ñu réformer justice bi dama gëmul justice su Sénégal ci dossier boo xam ne am na connotation politique gëmuma ko mais la loi d'abord l'article de la constitution dafa ne liberté de manifester sénégalais dama bëgg mu leer mooy sénégalais bu nekk am nga sañ-sañu ñaxtu te waxul ni da nga war autorisation de dafa ne da nga ko war a yéegal rek autorité bi la loi de 1978 sur les manifestations lan la wax dafa ne autorité administrative mun na interdire un regroupement wala une marche mais ci ñaari condition te ñaari conditions yi dañu war a daje dama bëgg ñu déglu bu baax donc interdiction bi c'est l'exception c'est par le principe mais pour mu am il faut que ñaari conditions yi daje bi ci njëkk mooy il faut mu prouver ni am na menace à l'ordre public prouver gu ko de wax ñu lan mooy menace loolu moo tax ñu ne procureur génnal ne gis nañ fi ay rebelles yu bari Salif Sadio sax mi ngi dakaar ay waxu daanu saret yoo xam ne kenn xamul lu mu doon ñaareel bi mooy ñu prouver que ñoom amuñu suffisamment de force de l'ordre pour pour encadrer la manifestation ba trouble ba menace de trouble à l'ordre public boobu du am ñaar yooyu il faut mu daje or su ngeen seetee arrêté préfet bi benn la ci wax kon arrêté bi c'est illégal dafa ne menace à l'ordre public mais waxul ni man préfet aw ma suffisamment de policiers de gendarmes pour encadrer la manifestation te gis nga loolu cour suprême ci boppam génn na ci arrêt yu bëree bëri bëri bëri ma jox leen ci ñeent rek en 2011 Alioune Tine Rado contre État du Sénégal en 2016 Amnesty International contre État du Sénégal en 2018 Église du christianisme céleste contre État du Sénégal et en 2019 Assane Ba biran Bari et compagnie contre État du Sénégal yëpp même chose la État du Sénégal dafa interdiroon manifestation Cour suprême ne ko da nga ne simplement que menace à l'ordre public mais prouvé woo ni yow amoo suffisamment défectif de policier et de gendarmes pour encadrer ba menace boobu du am donc tu n'as pas le droit d'interdire la manifestation donc l'arrêté du préfet lui-même est illégal léegi nag leader yi mun nañu xool parce que man gëw ma ay ay li ñu li ñu justice woon ci jamono ji man gëw ma justice bi mais su ko su ko état suñ ko dugalee suba it la cour suprême a 48 heures pour délibérer mais vie que ñoom tey la ñuy doog a notifier affaire bi suñu dugalee suba la cour suprême doit se donner les moyens de de régler cette affaire avant vendredi matin c'est ça qui est la norme mais duñ ko def parce que waajee toll fi mu toll woo leen ne leen bu leen yëngatu foofu la Sénégal toll bu ma dajalee lii lépp nag je vais lancer un appel au Sénégalais au militants et militantes aux sympathisants et aux sympathisantes à tous les Sénégalais et Sénégalaises épris de justice appel bi ma leen lancé woon daaw laa leen di waxaat c'est un appel à la résistance constitution moo ne ku ñu dénk nguur muy jalgati yoon di utiliser les moyens d'État pour dal ci kaw Sénégalais yi pour dal ci kaw opposition bi constitution may na la droit nga résister ni mu valable woon daaw ci mois de mars la valable tey lu bëri ci sénégalais yi dañu jàpp ni mobilisation bi sénégalais yi affaire u jaralagu leen ñu mobiliser wu donc nañu xaar mbir mi ba bu mu tuddee troisième mandat may wax sénégalais ni du affaire liste moo tax ñuy mobiliser wu lay xew tey mooy déterminer troisième mandat bi. bu ku jàpp nii affaire bi suñ ko bàyyee mu yomb nii du continuer ci troisième mandat bi forcé def forcing da ngay nax sa bopp. moo tax j'appelle tous les sénégalais à la résistance dafa am jamono yoo xam ne buñ ci tollee cim réew li nga xam ne mooy xeeñ ci sénégalais ñëpp xam ni changement bi ñuy xaar depuis longtemps xeeñ na mat na ñor na surtout yéen jeunesse bi. surtout yéen jeunesse bi muy étudiant bi muy ambulant bi muy euh, euh, élève bi muy keneen ak keneen nga xam ne yéen lañu bëgg a xañ loolu Macky Sall bugg fi toogaat vingt ans parce que rek suñu gaz bi mu bëgg jaay mu jaay ba pare bugg koo continuer ak suñu xaalis réew mi ñuy détourner ak yeneen ak yeneen su ngeen seetaanee ba liy romb facilement suñ ko seetaanee ñun ñëpp ba mu romb facilement dinañu matt suñu baaraam te duñu am fu ñu ko jooyee moo tax fu ñuy daanelee mooy appeler publiquement massivement à la résistance face à la dictature rampante de Macky Sall